ma الذي jëf mbokk téléspectateurs yi nga xam ne yéen ñuy bàyyi xel fii di nuyu di leen ziar di leen ndokkeel bi nga xam ne nii ci la ñu nekk ci weeru safar nag xam ngeen ni buñ ci duggee li xam ne moom moo di bernde yi comme ni ko borom santaane Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul taalibe yi dañ ciy bu baax li tàmbalee ci ginaar ba ci giléem lépp taalibe dañ koy fàggu ngir berndeel ñi nga xam ne ñoom ñoo di gani taalibe yi nga xam ne dañuy bàyyeekoo fépp ci biir réew bu Sénégal ak ci bitim réew loolu nag xam ngeen ni nag am na ci bu am solo giléem it am na ci pàcc waaye tam xaar itam ah, desul ginnaaw ba tax na tey ji ñu ngi fii daralu kër Serigne Fallou Mbacké daralu Ndindi Euh, ànd ak waa bergerie waa kër Serigne Fallou Mbacke ci njiitul Serigne Modou Ndaw mi taxaw ak moom nii fii nag bu nga gisee ñu andi leen fi yéen mbokk taalibe yi fas leen ko wan mooy xéewal gi nga xam ne moom moo fi nekk ak tawfeex gi nga xam ne nii euh, bergerie bi am na ko ndax lépp loo xam ne nii wala bépp taalib boo xam ne nii sa poche nu mu mënti toll ak loo mënti yore boo dikkee fii ci Modou Ndaw ci darawu Ndindi waa kër Serigne Fallou Mbacke di nga mën a am loo xam ne nii di nga ko mën a teral say gan xam naa ne nag euh, nettali ci gémmiñu borom la dàqee dama leen di bàyyi ak Modou mu nuyoo ak mbokku taalibe yi waaye itam ñëwaat ak ñun ci xéewal gi nga xam ne ni andil na ko mbokku taalibe yi nga xam ne nii war nañoo bernde ci màggal Touba maa ngi nuyu mbokk yëpp di leen ziar bu baax di ziar tamit kilifa yi na moom ñoo nekk si daral gi xam nañ di ziar jëwriñ yëpp di sant sama ñaari waajur bu baax a baax di ziar sama sëriñ sama yaakaar muy sëñ Abdou sëñ Laan Mbacke moom si sëñ Modou Balla Dior maa ngi ko siyaar bu baax a baax sama sëriñ. gis nañ ci bergerie yi waa kër Serigne Fallou Mbacké ñu ngi fi daral Touba Ndindi euh, li tàmbalee ci ginaar ba ci gileem ni ko ku tedd ki sa santaane woon bu ñëwee fii ci sa bergerie yi mën nañ ko fee am ci ay njëg yu xéwale ndax loolu mën nga ñu koo détaillé. waaw loolu moom am na dara gi moom si kàttanu yàlla ko fi ñëw ku ne njëg yu xéwale dañu fi ndax fii mooy daralu nit ñi ñu ànd ko daralu Serigne Fallou kooku bëgg a xam tamit soo ñëwee ba kër Serigne Abdou Karim si rampaye bi tëli bi jëm Ndindi beneen tëli bi jëm Daara soo ko toppee rek da ngay egsi si dara li ñu laajte man mu ndaw Ndiaye laa tudd mu ndaw Ndiaye laa tudd dëkk Corniche su sëñ Modou. nag yi nag ci ci ci la toll pour ñi nga xam ne ñu ngi sànn yor seen euh, xaalis bi seen poche bëgg a ñëw jënd nañu nañu moom prix yu mu toll kam ay saa nangam am na kam kala kam saa trente am na saa dix am na ba fanweer fanweer ak nangam juróom fukk trois cent quatre cent cinq cent ba six cent ba sept cent. ba huit cent ba neuf cent ba un million programme boobu am na ak programme yooyu moom na nga joxe yooyu ku mën a Cheikh Mor Mbengue moom dana far lu mu koy jënd ak gala seek far na lu mu koy jënd bu baax. léegi daal kon nag yi ñëpp sa poche tool li tàmbalee ñaar fukki junni jëm loo mën a am rek boo ñëwee fii ci bergerie waa Kër Serigne Fallou Mbacké ci Mourou Ndaw Ndiaye di nga ko mën a am. am loolu moom soo ñëwee fii si Mourou Ndaw da nga am programme boo bëgg rek si kàddu yàlla suñu gisee da ko am soxal bu sedd yi tamit da ko am bu baax a baax a baax. gis nañ tam gileem yi moom bari na nga ci lool macha allah loo ci yore euh, naka lay demee. gileem yi moom mooy indi nañ ko sa màggal gi doo màggal gi doo nga tax ñu indi ko waaw màggal gee tax ñu indi ko moom tamit seerut waaw ndax bi sëñ Tuubaa moom képp ku bëgg a aj ku ko bëgg aj rek yaay aju waan moom wàcc sëñ sëñ bi da koo wàcc si côté bépp léppay yomb léppay am xéwal waaw léppay am xéwal ndax gileem yi trois cent dana am trois cent cinquante quatre cent cinq cent six cent ba sept cent tukkal yi ñoo jar ay mooy gileem yu mag yee mag. xar itam nee nga sànq am na xar yu miche wi am na xar yi euh, lépp loo bëgg boo ñëwee fii ci mu ndaw Ndiaye daralu Serigne Fallou Mbacké Ndindi di nga am ay fay xeetu xar yo bëgg. waaw soo fi ñëwee moom da am fee euh, xar yi nga bëgg moom da nga ko am maanaam xar yi xar pour xar yi miche nga xam ne ay trente mille euh, trente mille trente cinq. kooku xare yu baax yu mel noonu ku bëgg xare pour moom donc am si si si amin bu baax wu rafet soo bëggee tamit soo ñëwee ñu topp toll ko bool la ato ko mën na tey waa ato yi ne daral yànd mi ngi fi waaw mbay caam mi ngi fi daa ato yi fi ne laa la mel waaw ñu yóbbul la ko ba fa nga jëm bool la ak ñoo xam ne ñoo la koy fekkewoon nag la wala gileem ñoo la ko yóbbul wàccel la ko yeewal la ko doo ko ñëw si kaw si déggoo loolu moom am na fi fekkee tamit eh, sama dëkkandoo la ku ma ne tey fa mu koñ ba nga dëkk muy naamaatoo kër Sëñ Moodu si place Afa Diaw am naa fa sama benn waay bu naan Xaadim Mbeng ak maam ak ak Moodu Mbeng ñoom tamit fekkee foofu la moom soo jëflanteeg man wala nga aw ko si ah, wala koo xam ne tey xam nga Afa Diaw wala nga jëflanteeg man loo bëgg ato boobu moom mën na ko yóbbul mooy Moodu Mbeng eh, yi nga xam ne ku ci bëgg a ñëw fii ci dara wala ku bëgg a yow pour mën laa laaj numéro yooyu la numéro yi da ngay def 76 501 55 66 benn bi nga def 117 ngay def 225 76 22. adresse mooy Daralu Ndindi kër si waa kër Serigne Fallou Mbacke chez Moundou Ndaw Ndiaye. Moundou Ndaw Ndiaye laa dëkk Ndaamaatu laa dëkk kuréel Serigne Modou ku fa ñëw rek adresse soo toxee si kuréel Serigne Modou soo ma wooyee wala nga ñëw place Afa soo laaj ci Moundou Ndiaye daan la ko. kon daal client yi ngay jëflante rek ñëpp yaa ngi leen waaw dig daje. waaw ñi may ñëpp nag moom maa ngi leen sant bu baax a baax a baax di sant tamit suñu sëriñ suñu lépp muy sëñ Abdou Karim Mbacke ñu ngi koy sant di sant tamit soxnaam ah, di sant soxnaam yëpp di leen màggal bu baax di sant tamit ki su man na yaay puy moom ku baax la si man ndax sag màggal moom li muy du fi ñëw sax maa koy jaay ku naan afa jot tamit moo ñu boole. li li li olof Njaay naan do do do nit nit du fàtte daal man man ki ma booleeg moom laa wax Afa Dia moo ñu boole depuis boobu ba nag maa ngi si am gis ak yokkate bu baax a baax moo tax moom tamit nit ku baax la maa ngi si gis ak bu baax naa ma boole mi yaay koy chaque maa koy jaay nag yóbbul ko ko sa day sedd bu baax a baax di sant tamit Adama Sène moom tamit moom maa ngi ko sant bu baax ndax xam ne ñoom ñooñu tamit may sant moom waralut kenn muy Afa Dia du ma ne bu dëgg gis mën a xew rek Afa Dia la moom tamit nit ku baax la ku gëm koñam la ki ku gëm lim doon la liñ koy ñaan mooy yàlla na ko seen Tuubaa tëjjil buntu xéwal yëpp yokk ko wërtefam musul ko te seytaane boole se sa bam fi ginaane ñu ngi koy sant bu baax a baax a baax amani ala